alaykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu di leen ziar yeen ñi nga xamne yeen ñuy ci seen bi di kewlo di ko top ak ñun ci jotaay bi di jotaay xam-xam di jidal ci sunu nuyo Serigne muntaha mbacke di ñaan yalla yagal ko fi te ko taar aar ko ba limu am yene liggéeyal ko maam ja mu liggéeyal ko nim ko bëgge di nuyu mbollem ñi nga xamne ñom lañu bokkal radiyallahu taala anhu di nuyu mbollem ñi nga xamne ñom lañu mi ak bidim rew ñëpp di nak di jale Eh, yoonu murit yëpp ki nga xam ne di jaale it waa kër sëriñ Moustapha di jaale waa kër sëriñ Baara muy jëmm joo xam ne ñun ñoo ko bokkoon ñu bokkoon benn waajur muy sëriñ Ahmad Mbàkke mu bàyyi ko fi eh, ci suuru màggalu Mbàkke Kajoor googu dem wuyu ji boromam fekk ji maam di ñaan nag képp koo xam ne seetaan na suñu vidéo bi mu ñaanal ko yàlla yërëm ko taxaare àjjana di di woon nit koo xam ne wax dëgg yàlla li ñëpp seede ci moom mooy lu rafet nit ku baax nit ku yiw nit ku set te sell maa ngi sàkku nag ñëpp nañ ko ñaanal tey nag suñu jotaayu xam-xam bi dafa am benn tomb boo xam ne moom la ñuy waxtaanee tomb boobu nag day doon tomb boo xam ne damay wax naan képp ñëpp war nañ koo diglu pour mën cee jariñu muy eh, diggante rawxaan ak ismullahi azam ak jinne lan mooy seen différence ndax it da ngay gis ne ndaw ñu baree bari dëgg mën nañ xam-xam te itam ndaw ñu baree bari ñu ngi ciy loru nan lañ ciy loro mooy xàmmewul lan mooy lan lañu war a jëfandikoo ak lan lañ war a jëfandikoo dañuy def lu ñu luñ lu ñu gis rek turuñ gis rek ñu jox leen ko xamuñ ba xam war nañ koo jëfandikoo ak waruñ koo jëfandikoo ñëw rek di weer ba benn instant yàlla def ñu tàqali ci seen sago ndax li ñuy jël moo leen dëpp doole kon nag ñu am loo xam ne explication boo xam ne dañ ko ci commencé ñu ko commencé ci ni ngeen ko gisee mu yaa ilu nga gis ci ñu teg ci nabbun ñu teg ci tiisun ñu teg ci ismullahi kon dèjà ñoom ñooñu benn bokkuñ yaa ilu gi moom lay mooy rawxaan nabbun gi moom la ñu génnee comme jinne tiisun gi moom la ñu génnee xudaam ismullahi gi bokkul mooy turu yàlla bu set wicc yaa ilu gi nag da comme man ngaa jël benn tur turu yàlla nga tëgg ko talsam génne rawxaan bi mu yaayilu mais loolu dafa mat a teey ndax damay gis ñu baree bari dañuy jël benn dagg benn xaatim génne dagg euh, benn xaatim jël euh, wàccee lim ba génne ko rawxaan mu yaayilu te itam bu boobaa xamoo ban xaraf moo ëpp doole ak ban xaraf mooy xaruf sulmaan yu xamoo nan la xaraf tëddee ndax gis nga alif gii alif gii nii di compter benn man nga mën naa ëpp doole euh, bague yi di compter deux te loolu boo ko maîtriser wu dagg rawxaan génne rawxaan waroo koo mën a def ndax euh, bari nañu sànq ñoo xam ne côté boobu dañ cee sànkoo nekkul ne dangay ngay jékki tëb ñëw ne euh, turu yàlla bi allahu la allahu di 66 ñun la mooy ci yaayilu 52 nga ñëw mooy ci yaayilu li ci des nga dëgg ko rawxaan demeewul noonu ñu bari bari dañuy dañuy rir ci côté bobu te itam loolu mën na leena sank ta ndaw ñu bari bari buñu jang asar loolu lañ leen koy jangalé nañ ko bayyi xel bu bah baax ndax bala nga dag ben rawhan wala khudam wala ismu jinne nga genné ko war nga mëna xam hadad yi war ngaa mën a xadat xadadu laxaniyu man nga war ngaa mën a xadat xadadu basu war ngaa mën a xadat xadadiyu laxaniyu bokkul ak basu ak ak bokkul ak am na xadat boo xam ne booy jàng tur yàlla dañ lay wax ne la allahu gii boo ko doon adat dangay compter allahu 66 nga ñëw ne allahu 66 la am na boo xam ne boo koy xadat dañ naan la allahu gi boo ko jëlee da ngay jël araf yi araf yi muy 66 nga jëlaat ñaar araf 107 8 9 10 muy 110 nga jëlaat base bi muy 111 kon allah dalay jox 111 nga jëlaat beneen xaraf bi danaa la allahu alif bi rek day konte lu ëpp loolu alifun lay doon bii mooy adadu basu nga xam ne alifun laamun laamun haun léegi boobaa boo adatee xaraf bi day bari te tur yàlla woo wépp tur woo jël wala loo génnee raw xaan rek war ngaa mën a xam ba xam euh, xadat ban nga ko war a xadat afaa nga koy afaa génnee war ngaa mën a xam ba xam allahu gi alif gi moo ëpp doole ci laam gi wala wala laam gi moo doole ci alif gi wala alif bee gi moo doole loolu nag boo ko xamul boo ñëwee di génnee benn xadat rek dalay xaw a indil ay difficulté boo ko liggéeyee ndax dañ lay wax ne la benn baatu alif rek li ci nekk euh, ci biir alif gi ci ay jinne wala ay rawxaan kenn xamul noo xam ne noonu la toll ci àdduna benn baatu alif bii ali euh, boo ko jëloon am na noo koy tëggee mën nga cee génne turu jinne ya nga xam ne ñoo ca nekk boo cay liggéey yaa nga cay woo famille ba nga cay woo dañuy ñëw junne yooyu ba tey bokkuñ day duggaale ci nabun gi nga xam ne junne yooyu ba tey bokkuñ ak yi nga xam ne ñooy nekk ci euh, sën yi ak yi nga xam ne ñooy nekk ci àll yi yi nga xam ne ñooy nekk ci ñooy jëmmal nit ñi wala yooyu ba tey bokkul ak yi nga xam ne moom ngay tëggee turu yàlla génnee ko ci nabun mu jox la ko ba tey tur yooyu jinne yooyu bokkul ndax dañ lay wax ne la alif gii nii boo ko jëloon li ci nekk ci ci ci ay jinne yoo xam ne ci baatu alif arafu alif rek ëpp na bëri na lool moo tax kenn warul jekki-jekki jël benn tur di ko liggéey wala liggéey te xamoo ci dara loolu ëpp naa def wala nga jël tur jinne ndax euh, comme ni mu nekkee ay famille nga comme max naa lu ma la ko doon misaale comme comme nga dag nga tur nga dagg aw tur euh, comme tam takkata jaysun Muhammad Alun xam nga loolu mu ngi doon barxut nekk benn tur woo xam ne mën naa la wax ne la euh, barxut ñu bari sax dañuy nekk naan barxut di wax euh, secret bi te fekk xamuñ ko barxut aw xur la woo xam ne ay jinne ñoo fa dëkk la fa nekk la fa dëkk ci jinne boo ko compté mu ëpp fuuf li dëkk ci doomu aadama li ëpp li nekk ci jullit ci doomu aadama yi la fa nekk ci biir xur woowu moo ëpp doole nga gis ne xur woowu am na ñoo xam ne bu ñu dox comme ni doomu aadama doxee la ñu doxee am na ñoo xam ne bu ñu dox dañuy nuur ci biir suuf si am na ñoo xam ne bu ñu dox dañuy naaw kon ba tey dèjà ñoom ñooñu bokkuñ léegi nag bala ngaa adapté wu seen bala nga caa dugg di ca woo tur tur wa nga cay woo war ngaa xam ban famille la bokk ci yooyu boo xamul ban famille la boo xamoo nan lay dikkee kon bu egsee da lay lor lor googu nag ba egsee tiitaange googu mu lay jox moo lay indil nga eh, eh, tàqalikook sa sago ba tey moom bokkul ak yeneen tur yi nga xam ne danga koy tëgg ndax nii allahu gi mën nga ko tëgg génnee léegi nii jinne yi nga xam ne ñoo ànd ak moom te boobaa boo ko génnee ku ko liggéey daf koy gis bu dee da ko génnee tur woo xam ne wu set lay doon xuruf sulmaan yi allah ismu saati gi boobaa tur la nga xam ne mooy sulmaan yi mooy ñëw wuy si la bu dee da nga ko génne xaruf naar yi la nga xam ne mooy naar yi mooy ne wuy si la muy loo xam ne lu mat a la daal nga dugg ci euh, tey suñ gi moo ëpp nag ñoo xam ne moo leen di indil ay difficulté ndax xudaam euh, dafa am doole lool muy sahida saxida gi mooy euh, teysun muy 1019 ñu bëree bari nag ci li nga xam ne moom la leen di lore mooy que comme bu ñu jëloon ñu baree baree bari bu ñu jëloon allahu gii ndax ci la indi leçon bi bu ñu jëloon allahu gii ndax euh, ñu ne la génnee ci xudaam xamoo noo koy génne ndax bu boobaa da nga naan allahu allahu 66 la léegi 66 ñu ne la léegi 66 mooy ci 1019 doo ko mën a mooyee ndax matu ko. man donte mën nga cee mooy 52 mais mënoo cee mooy 1019 lan nga ci war a dolli ak nan nga ko war a xadatee yan xaraf nga war a jiital lan nga ko war a liggéey ba mu mën a génnee 1019 te ba pare dalay jox allahu bi loolu moo xaw a xóot lool nag ñu baree bari buñ des fois dañuy jël allahu bi yokk ci 1019 boobay génnee xudaamu allahu da ngaa jël say lim rek boole loolu du la du la jox xudaam te bu boobaa boo ko loree boo mën na laa lor ismullahi bu way di werdu amna loy wo mo xam muy muy sulmani mo xam muy nurani lepp lu way di wérdu rek amna lo xamne mom ngay wo te bis bu ñewé bu dé lu bax la bu ñewé lu bax lay doon lu bax la lay indi bu dé lu bon la lu bon la lay indi moo tax euh, dafa mata tay ah, li ni tay sun tay sun tey gi dafa upp doole xudaam dafa upp doole yi yep da leen ëpp doole motax man na tay lol dal diko di bañ nañ ko sax boroom xam-xam yi bu ñu la koy jàngal dañ lay wax naa la boo doxee ba man koo génnee dellu wattu di ci liggéey loo xam ne ëpp na saa ndax euh, doole ji moo bari lool lool lool lool da gis nag ku ci génnee ab xaatim xaatim ba jox ko 1000 mu toog liggéey xuddaam di 1000 loolu mën na koo indi lay difficulté la mi sàkku du am ndax xaatim li may faral di wax rek xaatim euh, mën nga koo nga gis koo xam ne génne na wérdu ba mu man 1000 daanaka maîtriser wut asar xaatim dëgg dëgg na mu ko ndax euh, werdu xaatim warta dépassé cent lu xaatim ba lu jumla yi bari bari ci biir warta dépassé cent loolu nag jàng mu xóot a xóot la pour nga man koo maîtriser nga ñëw ci lu mel ne ismullaahi gii turu yàlla ismullaahi mooy lépp ndax ñu baree bari nag boo leen joxul lu am yaa yi lu wala lu am tey sunu wala lu jeexee siin wala lu jeexee ay buusin ay nuusin tuusin xeet yi tur yooyu rek nga xam ne ay turu rawaxaan la boo leen ko joxee rek boo leen ko joxul rek duñ gëm ne yor nañ tur yàlla woo xam ne wu am doole la te tur wi gën ëpp doole ismullaahi la ismullaahi nag yi gën du laal benn talsam non man mii de liggéeyu ma talsam te képp koo xam ne da liggéey talsam boo ñëwee ba mu dam naan la bàyyi ko ndax talsamkat yi ci ëpp xamoo siin si euh, xuruf ya fan lañ ko jëlee dangaa ñëw gis ñu tëggal la talsam ne talsam bii nangam lañ ko génnee ñun la talsam bi ismullahi lañ ko génnee nga jël ko benn talsam la ñaari talsam astafurlah moom laa wóolu ci talsam benn bi du lu may wax fii baneen bi arsatam ak samihul xabdu la ndax kat dañ laa wóor nañ ne talsam yu wóor yu wér peng la xam nga fan la génnee xam nga xuruuf ya laalewu daray tal laalewu daray kalkin di wàccee naan la nangam ngay kalkin nangam ngay wàccee mu lay doog a jox tur bi non non dangay mën a sukkandiku ñëw ne tur bi nii la génne ay alxuraan ba ay lii bi nii la xaraf yi lañ jël yi boole leen mu mat ci fii la génne nga xam ne carrément comme lu mel ne arsata boo ko doon calcul boo ko doon xool nga xam ne da da ngay xuruuf yi basma xuruuf yi faatiha yépp lañ jël tëgg teg ko muy arsata ak samiul xabir boobaa dangay mën a taxaw ne tur wi képp ku koy liggéey doo ci am loraange ndaw ñu bari nag lii da leen a xaw jaaxal ndax boo jëlee tur boo jëlut boo jëlee euh, ismullahi ansam te joxoo leen euh, talsam bu ca bu ca ko rek jàpp nañ ne tur wi matul te yàlla xam na ne wallahi lazim tur tur bi ëpp doole ci àdduna mooy ismullahi nga jël ko boole ko bañ koo boole ak dara loo xam ne léeru di ko liggéey noonu mu ëpp doole du la lor du la gàllankoor waaye nag na fekk sab xol laab ndax dama mas a toog ak benn kilifa gu mag a mag ñuy waxtaan ba mu yàgg ma ne ko dama gis ne ndaw ñu bari des fois dañuy jël mën na jël allahum benn baat di ko liggéey ba fanaaw ba egg niveau boo xam ne seen xel lay tàqalikoo ñoom ñu ne ma loolu day laaj ci seen jëmm da daan may tegal ne ma turu yàlla kenn waru koo jël di ko liggéey te demoo ci sëriñ bu ko mat dëgg-dëgg bu la ci jiitu bu la ko gën a xam bu ko maîtriser lool mu jàngal la ko nga xam ne foo ca taxaw foo ca toll moom mën na laa wax ne la lii da ko war a wàññi lim bi danga nga ko war a génne ndax tur booy liggéey ci àdduna rawxaan ya nga xam ne ñoo ko téye am na sarax yoo xam ne ñoom lay moom la ñuy laaj am na loo xam ne moom la ñu bëgg boo da te da ko war a def ndax yow bu la génnee bu la laajee sarax xamoo ban sarax nga war a génnee te tur yëpp da ko da koo soxla day soxla sarax yoo xam ne dañ ko war a génnee ismullaahi bu mu mën a doon ci àdduna moo gën a gaaw ci samp doom aadama moo gën a gaaw ci def lépp lépp lépp ismullaahi moo ci gën a gaaw waaye nag ñu baree bari xamewuñ ko noonu kon nag buñ sañoon euh, comme nii ñu leen ko expliqué ngeen defee ko noonu te jàpp ci turu yàlla yii te turu yàlla yii kat ngeen di dem ci ñu ko xam ñu leen koy jàngal ngeen bàyyi tey suñ tey suñ gii tur yi fi jeexee ak buusin yaayilu nabbun tuusin ak lépp loo xam ne tur boo xam ne bu ne laa firi ak bépp tur yàlla bépp tur boo xam ne donte nit dala ko jox ne la lii tur yàlla la ne nga ne ko firil moo ko mënula koo firil naan la ay araf bi lañ jël tur bi lañ jël darbu ko dix cinq nangam ak nangam mu jox la ko bu bàyyi ngeen ko te ngeen jàpp ci turu yàlla yii te ngeen dem ci sëriñ nag bu ko mat mu jox leen ko ndax tur wi ma man Xaadim Mbàkke Tanzil tur wi ma war a jël ak tur wi suñ fàllu war a jël benn bokk ci ak borom ku ci ne am na tur woo xam ne moom la sa tabian moom la sa rawxaan moom nga war a topp moom nga war a jàpp moom la naan la boo koy liggéey aajo ju am ci nga ko war a ñaan nangam nga ko war a defee war ngaa xam sarxa yi war ngaa xam lépp ba maîtriser ko doog koo jël kon nag émission foofu lañ ko yemale wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp